di fas yéene rek di dellusiwaat ci jataay yi nga xam ne dañ ko jagleel ak gindikonte ci sunu wàllu diine ak sunu wàllu àddina ñu tudde ko fatawa tey ji nag mooy doon ñeenteelu jataay bi ñu jagleel loolu ci kooru ren gi di atum 1442 ci gàddaay gi tolloog 2021 ñu war cee dalal nag Serigne Cheikhouna Mbacké Abdou Wadoud su ko defee dañ koy bàyyi mu nuyoo su nuyoo ba noppi nag ñu daal di tàmbali liggéey bi incha allah.
bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina astafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi nuyu bokk ci teew yépp ak képp ku sunu kàddu di àgg ci moom fu mu mën di nekk di ñaan yàlla defar nu jàppandal ba nu wax fi lu jub te am njariñ defar nu jàppandal it ba lu am njariñ ci wax ji nu mën ko jariñoo sëriñ Cheikh
jërëjëf sëriñ Cheikhouna ci nuyoo bu am solo bi su ko defee dañuy tàmbali ci laaj yi laaj bi ñuy njëkkee boroom day laaj ne lan mooy atteeb koo xam ne dafa tukki ginnaaw timis waaye ba muy àgg fa mu jëm nag fekk na xaaj guddi jot mu ne ndax kon buy julligee da koy julli julli teew wala nu mu koy jullee daal
waaw kii ki jóg ki jóg jëm ci tukki ginnaaw timis ba mu yàgg fekk xaaju guddi jot ndax dana sañ a wàññi gee wala du ko sañ a wàññi dana ko sañ a wàññi dana ko sañ a wàññi ndax bi waxtu gee di dugg fekk na mu sañ a wàññi julli ndax fekk bu fekkee mu génn dëkk bi ba weesu lépp lu aju ci dëkk bi rek ci ay tool ak lu ni mel bu ko weesoo rek foofa la sañ-sañu wàññi julli di tàmbalee julli gu fekkutoon mu jot rek dana ko sañ a wàññi moo xam da koy julli ci yoon wi moo xam dafa day nekk ba àgg julli ko kon dana sañ a wàññi gee googu ndax ba muy jot fekk na mu sañ a wàññi julli suñ Cheikh.
kii tamit day laaj mu ne lan mooy atteb bokk ci li ñuy tudde ay mutuelle de santé
mutuelle de santé ay kuréel lay doon rek kuréel yoo xam ne nit ñi dañ fay daje ku nekk am lu muy joxe ñuy dajale loolu nag ku ci aajowoo faju ñu jàppale ko ci loolu mooy mutuelle de santé bu dee ci anam gi ñu koy defee ci Sénégal nag moom loolu lu dagan la ndax jàppalante rek lay firi jàppalante lay firi amul kenn ku ciy wut xaalis mooy nekkul lu ñu naan bu ñu nekkul lu ñuy wutee xaalis ñi ciy bokk itam bokkuñ ci ngir am lu ëpp lañ joxe woon waaye ku ne day joxe dara rek te ñaanut yàlla jotaat dara mutuelle de santé ki ciy joxe ñaanut yàlla jotaat ndax lay tax mu jotaat gënalu ko ndax wéradi wéradi wala aajowoo aajowoo kër docteur mooy tax mu am lum jotaat ci lim joxe woon te loolu ñaanu ko yàlla kon da yor àtteb dimbalante rek mbooloo mu daje loole daal kenn ku ne génne dara ñu dajale loole ne nag ku ci aajowoo wàllu kër docteur ñu jàppale ko ci loolu ci anam googu dara nekku ci amul kenn ku ci wut xaalis mooy nekkul commercial dañuy wax commercial bu nekkoon commercial nag bu doon ne daa am ku ko sos koo xam ne da ciy wut xaalis moom boobaa la dul baax waaye ni muy doxe Sénégal moom kenn wuti ci xaalis kenn wuti ci xaalis ñi ciy liggéey sax ñi ci ëpp duñu leen jox dara dañ koy def ngir yàlla rek ñañ cee jox itam lañ leen di jox ci xaalis boobu ñëpp yi dajale rek ci lay jógee waaye du ab bénéfice buñ ciy séentu bu demee noonu rek dañ naan dagan na ndax jàppalante rek lay firi sëñ Cheikh.
jërëjëf sëriñ Cheikhouna kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci kuy julli mu jàng faatixa benn yoon mu jàng faatixa ñaari yoon wala lu ko ëpp ci benn rakka.
faatixa day day farata te farata jum mën di doon nag ku ko yokk ci julli te tay ko julli ga day yàqu moo tax benn ràkka ku ci jàng faatixa ñaari yoon te tay ko julli ga day yàqu ndax dafa dolli farata te tay ko farata ji nag ju mënoon doon tam noonu loolu mooy nekk atteem ku rukkoo ñaari yoon te tay ko ci benn rakka julleem day yàqu ku sujjóot lopp ñaari sujjóot yi ñu xam te tay ko moom it julleem day yàqu suñ cheikh
kii day laaj mu ne ndax dagan na ci góor mu tukki tukki boo xam ne day génn am réewam te du ko yëgal soxnaam
ndax dagan na ci góor mu tukki tukki bu muy génn réewam te du ko yëgal soxnaam bu dee dagan moom dagan na dagan mooy loo xam ne bu ko defee duñ ne dafa mooy yàlla loolu mooy dagan bu ko defee moyut yàlla bu ko defut itam moyut yàlla def gi du ma yàlla ñàkk def gi du ma yàlla loolu mooy dagan ci ci anam kon dagan na waaye gënut nag gënut gënut gënut nit di tukki bay génnim réew te yëgalu ko soxnaam génn kër gi sax waru ko def te yëgalu ko sàkkantuma génnum réew nag ki nga bokkal dëkk kay xanaa booy génn da nga wax ne maa ngi maa ngi génn dem béréb sàngam sàkkantuma nag dem bay génnub dëkk wala dem bay génnum réew nag far kon gënut dagan na nag mooy ku ko def du ak mooy yàlla waaye nag gënut ñaar ñi bokk di sëy kenn waru ci dem te yëgalu ko moroñ moom du tàggoo day yëgle soxna si moom day tàggoo soxna si moom bu bëggoon a dem day tàggoo borom kër bi nag jaadu na buy dem mu yëglu mu yëglu lu néew néew danañ xam fan la dem danañ xam ci lu mu nekk ku ko laajoon sax danañ mën a xam luñ koy wax sëñ Cheikh
kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci boroom kër mu tukki ànd ak kenn ci ay soxnaam te du diisoog ña ca des jékki-jékki tànn kenn ànd ak moom te du yëg te du yëgoog ña ca des
waaw bu fekkee tukki bi day day amub diir diir boo xam ne dana dana salfaañe niñ tërale woon ay yi bu doon ne du ab diir lu mel ne dem rek ñëwaat ci bis bi loolu bu dee bu dee ak ayam la dara nekku ci ndax bisam la moo xam dañoo bokk ne ci kër gi mbool dañoo nekk bokk nekk feneen bisam la waaye bu ko naree weesu nag waru koo def lu dul da cee déggoo ak ñi ci des da cee déggoo ak ñi ci des mooy kon kuy tukki tukki bu muy am ay fan te ami soxna bëgg cee yóbbaale kenn da ciy waxtaan ak ñoom buñ juboo kenn ki bàyyee morom ji mu dem sañ naa ànd ak moom dem bu kenn sañuta bàyyi nanguuta bàyyee morom ji nag da leen di tegoo bant da leen di tegoo wala da leen di tegal bant mooy da def tirage tirage au sort la leen di defal ku génn mu ànd ak moom ma dem ca tukki ba waaye sañu ko def rek ci sañ-sañu boppam rek bu ko defee wàcc na liñ ko digal ci maandu maandu loolu bokk na ci li nit mën a maandoo bokk na ci liñ digalee ku am lépp seen soxna mu maandu ca kon bu bëggee tukki ci anam googu yonente bi sallallahu alayhi wasallam noonu daan def da daan teg da daan tegal bant ay soxnaam bu daan tukki ku ci bantam génn mu ànd ak moom sëñ Cheikh
jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne ndax koo xam ne dafa gis nit muy sàcc alali jàmbur wala muy tooñ mbokkum jullitam mu mën koo dimbile ba noppi bañ koo dimbile ndax dana ci am bakkaar
dana ci am bakkaar kay ku gis ku aajo woon dimbal tam mën koo dimbale bañ koo dimbale dana ci am bakkaar ku gis ku ñuy nangu alalam wala ñu di ko tooñ anam gu mën di doon rek tam mën koo fànq bu ko jéemu ta fànq dana ci am bàkkaar yàlla dafa digle nuy dimbalante ci lu baax wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tam digle ñuy dimbalante ne sa mbokkum jullit bu tooñee ak buñ ko tooñee na nga ko jàppale na nga ko dimbale buñ ko tooñee da ngay fexe ba fegal ko tooñ tooñ gi ñu koy tooñ ba teggil ko ko mu wax ne it ab jullit du seetaan mbokkum jullitam du ko seetaan mooy bu aajowoo dimbal tam mën koo dimbale du ko bañ a dimbale kon loolu ku ko def dana ci am bàkkaar te yoon yépp sax yoon yi nit ñi tëralal seen bopp sax dañ koy teg ay daan am na ak ak jàdd lu ñu tudde jàdd yoon goo xam ne ni ñu koy tudde mooy bañ a dimbale nit ku nit ku nekk ci ay jafe-jafe nit ku nekk ci ay jafe-jafe ku ko yëg te sabab luur ngir dimbale ko kooku yoon day day dal ci kawam yoonu yàlla ak yoonu nit ñi nit ñi liñ tërale seen bopp sax dañ ko ci def yàlla itam nag bëggut loolu kon ku gis ku ñuy yàqal te man koo fànq ku ñuy lor te man ca dara war na caa jéem lam ca man ngir mën a fànq lor jooju sëñ Cheikh
kii day laaj mu ne lan mooy prime suratul asri maanaam mooy lan daal lu muy tekki ak yan bind lañ ci mën a jariñoo
suratul asr saaru gàtt la waaye am na sax ñu wax ne bu alxuraan yemoon ci saar woowu rek dana doy ndax tënk na lépp أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر yàlla day giiñ day giiñ li muy giiñe baat bi dana firi jamono ci boppam jamono jamono jépp dana firi itam waxtu tàkkusaan kon dañ naan dafa giiñe jamono wala dafa giiñ ci jamono wala mu giiñ ci tàkkusaan waaye lan la giiñ dafa giiñ ne nit day perte bu ëllëgee day ñàkk du am dara bu ëllëgee ci àllaaxira nit kudul kudul kon ñim ci génne rek ñoo dul perte waaye kudul ñoom day perte ñim ci génne mooy ñi gëm tey jëf-jëf ju baax tey dénkante di dénkante dëgg di dénkante muñ ñooñu la wax ne ñoom rek ñoo dul perte bu ëllëgee ku dul ñoom day perte loolu kon li tax ñu ne bu alxuraan yemoon ci saar woowu rek doy na lépp a ngi ci ndax gëm ak jëf lu jëf ju baax mooy lépp di dénkante nag sax ca ak muñ ca loolu mooy tax mu mën a dëgër mooy tax mu mën a yomb loolu kon mooy saar wi liñ ciy déggee kon rek mooy solo su solo su yooyu am solo su gëm am ak jëf ju baax ak dénkante dëgg ak muñ sëriñ Cheikh te dénkante dëgg ak muñ mooy rek li ñuy wax liñ mën a li ñuy tënk rek di wax naan mooy digle lu baax ak tere lu bon kon moom it day ab ponk ci lislaam digle lu baax ak tere lu bon kon ngëm ak jëf def lu baax ak di dig lu baax ak tere lu bon solo suñu am rek moom la saar wi di wane sëñ Cheikh
kii day laaj mu ne lan mooy atteb kuy dimbale waa joo xam ne dañ koo xam ci def ak mu yàlla mu ne ndax dagan na ndax nit sañ na koo dimbale ci ay soxlaam
bu dee soxla yooyu soxla yi soxla yi ñoom duñ mooy yàlla duñ ak mooy yàlla bu dee yeneen yitte yu mu am yoo xam ne doonut ak mooy yàlla mën na ko caa dimbale ndax ku ñu war a dimbale la moom itam mbokk biñ ko waxe woon léegi rek yàlla dafa digle ñuy dimbalante ci lu baax yonente bi wax ne day dimbale sa mbokk mu tooñ ak buñ ko tooñee kon dimbale day lu ab jullit war di defal mbokkum jullitam moo xam jub na moo xam jubut la am solo mooy la mu koy dimbalee moom du doon ak njubadi bu jubut itam mën na koo dimbalee lu dul ak njubadi te bu amee buntu ci moom nag mu mu mu gën a yaatal dimbale ga mooy dimbale ko ba fexe ba ci ci ci lu ko génn ci njubadi gi loolu mooy kii tooñ ni ñu koy dimbalee mooy fexe ba génne ko ca tooñ ga bàyyiloo ko tooñ ga kon ku jubadi ni ñu koy dimbalee itam fexe ba génne ko ca njubadi ga waaye bu ca génne gut itam sañ nga koo dimbalee ci loo xam ne moom du ak njubadi ndax mën naa doon bunt buy tax sax nga mën a am ci moom sañ-sañ wala baat boo ko mën a génnee ci njubadi gi suñ Cheikh
jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne kañ la génne muurum koor di war
génne muurum koor kañ lay war wala boog muurum koor ci boppam kañ lay war rek jëmmi muurum koor mi war ak génne gi ñaar la yu bokkut kañ lay war moom mooy bëccëg bi mujj ci weeru koor yi bu ab jantam sooyee mooy bu yàlla dogaloon weeru feeñ tey kon jant bii bu sooyee ci la muurum koor di ware am ñu wax ne bu fajar jotee kon ci diggante ñaar yooyu la benn ñu ne bu jant bi sooyee muy jant bii mujj ci weeru koor yi wala bu fajaru bis guddi gi njëkk ci weeru koor yi jotee ci la jëmmi asaka di ware muurum koor ci la muurum koor di ware bu dee génne gi nag moom lu jiitu loolu génne ko du war ndax waragut kon génne gi du war waaye bala ñoo julli moom wares na ko génne bala ñoo julli julli korite gi wares na ko génne du war nag lu jiitu asaka ci muurum kooram ci boppam di war génne ko du war lu jiitu moom ci boppam muy war bu mu waree nag mën nañ koy génne ba ba ñuy julli julli kori ji te mën nañ koy jiital sax nag bala moo war war nañ ko jiital nit mën naa génne muurum kooram lu jiitu jantu tey bii di sox nit mën na ko génne tey ci suba wala démb bu fekkee génne ko ci waxtu woowu mooy tax ki mu koy jox man cee jot ba man cee def li tax ñu ko koy jox bu fekkee bu négee ba jant bi sox wala mu nekk ba ñu julli fajar ba not bu ko bëggee joxe mën naa bañ a àgg wala bu àggee it kam koy jox mën na ko du ko mën a jariñoo ca anam gi taxoon ñu jox ko ko boobaa mën na koo jox li jiitu bis wala ñaari bis waaye war gi moom bu jant bi sooyee lay doon ñenn ñi ne bu fajar jotee sëñ Cheikh.
laaj bi mu ci topp mooy kan la muurum koor war ak nu muy toll ci nattukaay.
waaw muurum koor day ki muy war moom mooy ab jullit ab jullit jullit bopp am na dépense am ci guddi gi ak bëccëg gi mais bu doon ne ja bu tey koor gi bu jeexoon tey guddi gi ñu jëm am na ci dépense am bëccëgu bu ëllëg bi itam am na ci dépense am ba am lu lu ca des lu ca topp kon ku am lu ëpp li muy dunde ci guddi koori gi ak bëccëgu korite gi bu amee lu ca topp rek war naa génne muurum koor bu ko amul nag ci ngër mi dañuy wax ne sax bu ko amul sax bu amul du ca topp waaye am na ku ko mën a lebal te yaakaar naa mën a fay kon sax day leb day leb lu mu joxee muurum koor saa bu mënee fay fay am na nag ñeneen ñu wax ne nag àggut foofu àggut nag ci ci ci ci ñu koy lebloo bu amee daal lu dolliku ci ab dundam ci guddi geeg bëccëg bi ma joxe bu amut moo xam ne yàlla tegu ko ko ndax man man ba nekku fi loolu kon mooy kii mu war ni muy toll itam dañ naan ñeenti ñeenti bar ci loxo lay doon ñeenti bar ci ñaari loxo sax ñeenti nii nii ci koo xam ne loxoom duñ ne dafa rëy du ñu dafa tuuti kon loxo yu dugg digg doomu ku ci def ñeent ñeent yu toll nii loolu lañ naan mooy li nga xam ne moom la ñu war a génne lañ koy génne itam mooy fa mu nekk la ëpp ci li ñuy dunde la ëpp ca li ñuy dunde loolu dañ naan bu dee fu mel ne Touba dafa mel ne li ëpp ci li ñuy dunde mooy ceeb am na ñu ñu wax sax daanaka Sénégal gépp waaye Touba moom foog naa ne li ëpp ci li nit ñuy dunde mooy ceeb kon Touba moom ak fu mel ne Touba kon ceeb la ñuy génne lu toll noonu loolu nag biñ ko jéemee xayma ci nattuwaay yi wuute am na ci ñi ne nañ waaye am nañu wax ne ñaari kilo genn wàll daal mel na du diggu doomu na ñaari kilo ak genn wàll am ñu ne ñetti kilo am ñu wax lu yées ñaari kilo genn wàll waaye xëy na ñaari kilo genn wàll daal diggu doomu na xëy na ku ko jàpp daal dana yenu maanaa ku génn ñetti kilo itam baax na ndax am nañu ko wax ci borom xam-xam yi ñoom ñëkk wax itam dañoo dañ ko natt rek dañ ginnaaw nit ñi tolloo wuñu ay loxo nag buñ nattee la ñuy natt du tolloo du tolloo waaye kum sooboon mu nattal ko boppam kum sooboon mu nattal ko boppam bu fekkee loxoom doonut loxo yu ñu naan dafa rëy doonut loxo yu ñu naan dafa tuuti bu ci nattee ñeent loolu bu ko peesee nam toll loola moom day lañ naan mooy li ñu war a génne sëñ Cheikh.
laaj bi ci topp nee na ndax dagan na muurum koor ñu génne ko ci xaalis.
bu dee ngër mi day bu dee ngër moom dañ daan wax ne duñ ko génn ci xaalis dund bi rek la ñuy joxe ku war a génn ci ceeb daal ceeb lay génne wala ku ku muurum kooram war a nekk ceeb ceeb lay génne bu dee suuna mu génne suuna bu dee mboq mu génne mboq waaye du sañ a génne njëg li wala njëg gi loolu ngër mi moom moom lañ daan wax waaye ci jamono jii nag moom boroom xam-xam yi ëpp ëpp ëpp ëpp moom nangu nañ ñu génne ko ci xaalis génne njëg gi ci ngir yépp nangu nañ ñu génne ko ci ñu génne njëg gi muy ñaari kilo genn wàll njëgam njëgu ñaari kilo genn wàll ñu génne ko loolu boroom xam-xam yi ci mujj gi moom ñépp nangu nañ ko te yon na maanaa it ndax dañuy seetlu jublu gi jublu gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi nettali ne bi mu koy digle dafa wax ne ñii seen loxo jotul seen ginnaaw na ngeen leen jox ci bis bi luy tax du ñu du ñu dem di ñaani ak a yalwaan ak a laaj ndax bisu feet la ñépp war a bokk ci feet gi te ku amut lum jàpp nag bay ñaane ak a yalwaani kooku ak feetam day day des ñëpp dañoo war a bokk ci feet gi kon ñëpp dañoo war a xëy mën a toog seeni kër nekk seen njaboot la leen koy may nag mooy ngeen jox leen luy tax duñu aajowoo di wër di laaj ak a yalwaan jublu gi kon mooy loolu bu fekkee nag nit ki ñëpp dañ ko jox ceeb rek dana am leneen lu mu aajowoo dana am leneen lu mu aajowoo kon ak feetam dana des benn mu yam ci ceeb bi rek du am leneen mën naa bañ am lu mu ko toggee sax mën na ko bañ am lu mu ko toggee sax lu mu koy booleel bu mën koo jariñoo sax mën na ko bañ am wala bu ko bëggee mën naa jaay ci ceeb bi ngir am lu mu ko booleel te bu ko jaayee day wàññiku loolu ku ne xam na ko moom kuñ jox ceeb moom bu demoon di ko jaay duñ ko jëndeel lañ ko lañ la la la la ko ko jox la mu ko jëndi woon bu ko jaayaat duñ ko jëndi loolu kon day wàññiku te xaalis moom ku ko jox nit lu lu mu aajowoo rek mën na ko caawut lu mu aajowoo rek mën na ko caawut moo tax ñu bari ci jamono yu mujj yi moom dañoo jàpp ne xaalis sax mën naa gën mën naa gën sax ndax moom ku ko jox nit lu mu aajowoo mën na ko caawut te ku jox nit nag leneen jeneen aajo jam am du ko mën a wute ca loola bu ko ca bëggee wut day jaay loola def ko xaalis ginnaaw da koy defi xaalis rek kay ba ko joxoon xaalis da nga koy noppal te li nga koy jox du du wàññiku te bu ko defaatale xaalis boppam moom day wàññiku moo tax yanu na maanaa lool ñu ñuy joxe njëg gi ñu bare bari ci àdduna si léegi tam nag noonu la ñuy def borom xam-xam yi tam noonu la ñuy wax sëñ Cheikh.
kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit mu jox kenn lu toll ni benn million mu ci liggéey wala boog lu mu ci mën a def moo xam dal waaye bu ko dee fay da ko fay par weer waaye mu ne bu ñu xoolee weer yi mu ko fay nag day ëpp li mu lañ ko lebaloon.
jox nit xaalis. ne ko na ko koy fay par weer waaye dana ca dolli dara loolu riba la lañ cee dolli lu mu tuut tuut riba la ndax jox gi mooy da koo lebal rek te riba nag mooy bor boo xam ne biñ koy leble kii leb ak ki ñuy lebal dañoo déggoo ci ne ki leb buy fay dana fay lu ëpp lim leboon lu ci ëpp lu mu tuut tuut rek riba la kon loolu riba la mooy bor la boo xam ne kii fay dana fay lu ëpp lim leboon riba la moo xam da koy fayandoo benn yoon moo xam da koy fay ndànk-ndànk weer wu ne mu dugal ci dara benn la rek amut wuute fayandoo ko benn yoon ak di ko fay ndànk-ndànk ñoo ci yem. li am solo mooy daal buy mat buy fay bañ ne ko matal nga la muy la la mu joxe ëpp na la mu leboon loolu riba lañ doon suñu cheikh.
jërëjëf sëriñ Cheikhouna kii day laaj mu ne ndax dagan na ci kuy liggéey ci ab société far yàlla dogal mu am fa ay gaañu gaañu ci barabu liggéeyukaayam ne ndax kon dagan na mu jël ci alali société bi ngir mën cee faju
bu dee luñ déggoo woon la bu dee luñ déggoo woon la dana dagan buñ ci déggoowutoon nag du dagan kon mën nañ ko mën nañ mën nañ koo jox mu faju waaye bor lay doon bor buñ koy lebal boo xam ne ci wàllam la koy génne bu fekkee déggoo wuñ ci woon buñ ci déggoo nag dana dagan ndax ñuy séq moom ca tàmbali ba luñ déggoo rek ci loo xam ne du lu yàlla tere dana dana dagan danañ ko sañ a wéyal dañ ca dañ ca war a tënku itam kon bu ak déggoo amee dana sañ bu amee gaañu gaañu mu faju ci alali société bi bu fekkee déggoo amoon na ci ci njëlbeen ga suñu cheikh.
kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci kuy julli muy roy ci jumaa ji di sukkandiku ci rajo jumaa ji.
jumaa ji wala jumaa rek jumaa jumaa wala jàkka lu mu mën doon li gën moom ku bëgg a julli julli mbooloo da ngay dem ca mbooloo ma. jullit mbooloo la yonente bi xemmeem la jullit ñi wan leen ne moo gën fopp nit ki beru julli moom rek waaye mbooloo nag fa mbooloo ma nekk mooy mbooloo kon ku bëgg julli jullit mbooloo day dem fa mbooloo ma boo amee ngàntul dem fa mbooloo ma moo xam ne am na ngànt bu jullee moom rek du tam baax loolu kon mooy cosaan mbooloo moom ku ci bëgg a bokk day dem fa mbooloo ma waaye teewul nag bu dul àjjuma bu dul àjjuma ku demul fa mbooloo ma waaye mi ngi dégg mbooloo mi mi ngi dégg jullit mbooloo mi bu ca àndee teewut ñu ne wér na wér na bu dul àjjuma bu dee àjjuma nag du wér ndax àjjuma moom ci biir mbooloo rek lay wére kenn munta beru nekk këram di déggu di déglu di déggu jumaa ji julli mu cay ànd ci àjjuma kon du wér bu dul àjjuma nag danañ ne wér na waaye gënut nag gënut benn man fooguñ ne dana am dana am dana am dana am gëneelu mbooloo ndax mbooloo moom mooy ku ne ca mbooloo ma waaye nekk fa nga nekk di ànd ak ñeneen mën nañoo bañ a jàpp ne dana am gëneelu mbooloo ñaareel ba it ay ngànt mën naa am ci biir julli gi mu jaaxle ndax lan lay lan lay ànd ak mbooloo mooy rajo bi rajo bi moom mën naa jékki-jékki du ko déggati mën naa jékki-jékki du ko déggati la nu muy def bon loolu jaru ko jaru ko nit ki daal bu mënee dem ca mbooloo ma mu dem ca mbooloo ma bu ko mënut mu jullil boppam bu ko defee nag te du àjjuma danañ ne wér na waaye taxul mu gën ndax da ca am lu mën a juddoo loo xam ne da daa am lu ca mën a juddoo loo xam ne da koy jaaxal boobaa ndax li mu doon dégg bay mën a ànd ak mbooloo mi mën naa jekk-jekk du ko déggati yooyu kon jëru ko daal sëñ Cheikh
mbokk mi day laaj mu ne lan mooy àtteb koor ci réew yi nga xam ne nii bëccëg bi day gudd lool
réew yi nga xam ne bëccëg dafay gudd lool waaye na fa bëccëg di gudde lool noonu la fa guddi di gudde lool itam mépp réew mu bëccëg di gudde lool nu fa bëccëg ba gudde rek guddi dana ko fa gudde li am solo mooy bu fekkee guddeeg bëccëg am na rek ak lu ci lenn la gàtt gàtt ak lu ci lenn la gudd gudd ginnaaw guddeeg bëccëg am na rek buy woor ni ñëpp di woore lay woore bu fajar jotee lay jàpp bu jant bi sooyee lay dog day wër réew yi mel noonu jamono day ñëw koor gi dajeeg bëccëg bi gudd lool guddi gi gàtt lool waaye bu wëlbati ko waatee koor dana ñëw moom it dajanteeg guddi gi bëccëg bi gàtt lool guddi gi gudd lool ginnaaw daal guddeeg bëccëg am na kon moom li ñëpp di war rek lay woore waaye dañ naan nag bu dajeeg waxtu yu guddi bëccëg bi gudde lool nag na woor waaye bu wooree ba dem ba xam ne attanatu ko mu dog bu fekkee bi ñuy laata woor it xam na ne du ko attan xam nañ ne du ko attan ba tey mu bañ a woor bàyyi ba jamono wëlbatiku ba jamono ji mën a woore mu woor jamono yi nga xam ne guddaay bi du tol noona dana ko attan mu fay kon du nattale du nattale bëccëg bi lay woor ni ko ñëpp di woore bu ko attanee bu ko attanul nag sañ naa bañ a woor bàyyi ba jamono joo xam ne bëccëg bi dana gën a gàtt ba man koo woor mu fay loolu lañ ci wax sañ seer
kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteeb koo xam ne day wàññi ay atam ci ay kayitam
wàññi at ci kayit dara nekku ci dara nekku ci bu fekkee du ci lor kenn bu fekkee du ci lor kenn dara nekku ci te am na lu tax mu def ko ñu bari dañ koy def ngir ay sabab ngir ay sabab yoo xam ne ay nit a ko tëral rek ay nit a ko tëral ba nar koo xañ loo xam ne ay atam lañ ko ko bëgg a xañee mu def luy tax mën a jot ca loola waaye nag du du lor kenn bu dul lor kenn bu fekkee du lor kenn te lu mel noonu tax mu def ko dara nekku ci def ko ngir lor nag ñu ñu jàppale keneen nit ku bokkut ak ki nga doon ba ngay mën a luubal loolu moom mooy bon waaye bu fekkee rek dafa am lool yow mën nga caa jot te boo ca jotee itam nañ ko war a doxale nga koy doxale waaye tëral nañ luy lu cee tey mën a jot ngir say at boo defee pexe ba mën caa jot te doo lor kenn doo jël àq kenn boobaa dara nekku ci sëñ Cheikh.
kii moom day laaj mu ne lan mooy atteb massage ci lislaam
luy massage massage mooy lan massage mooy lan daanaka am na ñu naan mooy mooy bés bés bés bés bés dara néew ci comme comme comme bés kay dara néew jëm bés ci boppam rek dara néew ci bés la rek massage bés la rek bés ak sa yaram daal ñoo am nuñ koy kiyee ba xëy na ay coono wala ay yenn làgg yu ne ci nit loolu wees na massage nit ñi ko massage wees na ko loolu ñox kinési kinési kinésithérapie loolu moom xeetu tàggat la tàggataat cër yi cër boo xam ne dafa lànk dafa bañ dafa nanguwut am na nuñ koy tàggate ci nuñ koy nuñ koy laale nuñ koy bësee nuñ koy wëlbatee yu mel noonu ba mën koo delloo siwaat loolu nit ñi daañu ko wax massage loolu loolu loolu lépp luñ sañ la moo xam boobu la moo xam bés kese la rek yooyu yëpp luñ sañ la jëmmi ji luñ sañ la jëmmi massage ci boppam moom lu dagan la jëmmu ji bu ci leneen amee nag leneen la la ñuy xool waaye jëm massage ci bopp moom dagan la sëñ Cheikh
mbokk mi day laaj mu ne lan mooy àttab jullit boo xam ne day jaay ci yenn boutique yu mag yi waaye dafa nekk ci réewum jàmbur te marchandise ya fa nekk nag am na lu dagan am loo xam ne dafa xaraam ci lislaam lépp la ñuy jaay daal
waaw bu dee moom ci boppam dana jaay li dana jaay li li li araam day loolu baaxul bu fekkee day liggéey ci magasin boo xam ne dañ fay jaay lu araam lu mel ne sàngara te moom bu fa dee liggéey du ko mën a ñàkk a jaay boobaa na sabablu ngir am beneen liggéey daa war a sabablu ngir am beneen liggéey boo xam ne du fa jaaye lu araam day sabablu ngir am beneen liggéey ndax sàngara moom dafa doy waar rawat ndax sàngara la jo la wax ci laaj bi sàngara moom jege ko ci genn anam rek dafa jaaduwut yonent bi daal wax ñu bare bare lu mat fukk fukki fukki nit ñoo xam ne yàlla da leen di rëbb te fukk ñoo ñëpp daa am lu ñu seq ak sàngara rek lu ñu seq ak moom rek ka koy nal ka koy nallu ka koy jaay ka koy xelli ka koy jottali lu ne rek lu ne kon yooyu yëpp lépp lu lu lu laal lenn ci sàngara wala lu araam rek bu fekkee am njaay la te mënu koo ñàkk a def buy liggéey fii kon na wut beneen liggéey boo xam ne lu mel noonu du ca am fii ak mu koy am nag mooy jéggulu yàlla mën na ko jéggal fii ak muy am beneen waaye ne sabal moom ngir am beneen sëñ Cheikh.
mbokk mi day laaj mu ne ndax dagan na ci góor mu wax soxnaam ne ko lebal ci boutique bi rek waaye waxu ko kañ lay fay.
wax soxnaam dama leb ci bitig bi te waxu ko kañ lay fay dagan na kay borom bitig bi kay mooy xam moom mooy xam ndax moom dana mën a leble te duñ ko wax kañ lañ koy fay waaye kii leb moom sañ naa leb rek bañ wax kañ lay fay kii leble itam sañ naa leble te duñ ko wax kañ lañ koy fay waaye sañ na ne it danga may wax kañ nga koy fay waaye ci moom la aju kon du ne kuy leb moom moo war a wax ne kañ laay fay mën na koo wax mën na ko bañ a wax kii leb it sañ na ne bi sàngam nga may fay sañ na ko bañ wax itam lu ci man di am rek ca njëlbeen ga daal nañ ca juboo nañ ca déggoo bu fekkee am na àpp nañ ci déggoo ca njëlbeen ga bu fekkee amut àpp itam da fekk ñoom ñëpp ñu xam ne amutu àpp waaye nit sañ naa leb te bañ wax kañ lay fay sañ naa leb lu itam te bañ wax ka muy leb loo kañ lay kañ lay fay sëñ Cheikh
kii dafa wax ne li ñuy tudde ak daruriyatul xams buñ ko dee tegale mu ne yooyu diine ak bakkan ci la bokk mu ne diine ak bakkan ban lañ ci war a jiital ak ban njariñ moo nekk ci loolu daal ci jiital diine wala jiital bakkan
mooy yi nga xam ne dañ leen a war a sàmm yi ñu war a sàmm yi ñu war a sàmm diine ci la bakkan ci la muy dund dunduk nit dunduk nit dañ ko war a sàmm diine ji dañ ko war a sàmm gëm-gëmu nit pas-pasu nit yooyu nag diine ak ak dund luñ ciy jiital dund gi lañuy jiital dund gi moom lañuy jiital ci yépp yi ñu war a sàmm yépp dund moo ci jiitu dund moo ci jiitu yàlla ca alquran wax nanu ko wax nanu ne nit bu fekkee xettali boppam moo tax mu wax lu nurug weddi yàlla du ko jàppe yàlla du ko ko jàppe kon moo may nit buñ ko taxaw woon ak ngànnaay ne ko weddil yàlla tey mbaama rey la wala saagaal yonente bi mbaama rey la loo xam ne dafa dàqonte ku ngëm yàlla moo ko may mu def lañ ko wax tam bañ a àgg ci xolam ndax nga mbirum xol la buñ laa wedd yàlla man nga ne yàlla amut waaye jàppoo ko sa xol buñ la saagaloo kuñ la saagaloo man nga koo saaga waaye du lu la neex ci sa xol yàlla maye na loolu loolu mooy wane ne kon sàmm bakkan ak ak dund moo jiitu sàmm leneen duñu wax ne nit ki na sàmm diineem ba bàyyi ba bàyyi bakkanam waaye na sàmm bakkanam bu sàmmee bakkanam ba jot bakkanam la demoon mën naa ñëwaat leneen lu demoon lu ne mën naa ñëwaat diine ja nga xam ne jàpp nañ ne demoon na ndax waxoon na luy nuru ak wedd yàlla bu sàmmee bakkanam ba nekk fi dana dana defaat ak ak ngëm yàlla même bu doon wedd ne sax dana gëmaat dana mën a gëmaat lu mu defoon ci loo xam ne rek lu yàq leneen la bu sàmmee bakkanam ba nekk fi dana man defaraat loola dana man dabuwaat lool loolu moo tax sàmm bakkan war a jiitu ci lépp man kafara billahi min baadi imaanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min allah wa lahum adhabun azim te loolu bi ko bi yàlla di wàcce loolu dafa fekk benn saxaabi yi lu mel noonu da koo daloon ay noonu dañ koo jàppoon ne ko da ngay wedd yàlla mbaa ñu rey la te mu xam ne caaxaanuñ mu wax ci làmmiñam loo xam ne wedd yàlla la ci làmmiñam biñ ko bàyyee mu ñëw ci yonte bi nag ne ko man de yàqu naa yàqu naa ndax ñee man man man man manee nañ ma ba ma wax loo xam ne ak wedd yàlla la yàlla wàcce aaya ji wane loolu dara nekku ci ndax nekkul ci sa xol sàmmal sa bakkan boo ko sàmmee ba noppi nag leneen lu rawoon lu ne da nga ko mën a dabaat moo tax sàmm bakkan kon la ñuy jiital sàmm ak dund la ñuy jiital door cee teg leneen sëñ Cheikh. loolu lépp ci lañ bu ñu ko seete mooy ci lañuy gise ne nit ki liñ koy tere lépp bi yàlla di wax ci yiñ araamal ci nit lekk ko waaye daa wax ne bu demee bakkanam nag bu fekkee bu lekkul luñ ko tere bakkanam man caa des na lekk lañ ko tere loolu lépp mooy wane kon sàmm bakkan mooy jiitu sàmm leneen sëñ Cheikh.
kii nee na moom dafa dugg ci jàkka ji fekk ñuy nodd mu ne ndax kon day xaar ba nodd gi daanu mu door a nuyu jàkka ji wala bu ñëwee rek mën naa kabar julli ñaar rakk yi mu nuyu jàkka ji.
waaw foofu day day day ñaar yuñ santaane yu yu yu daje santaane nañ bu ñuy nodd ñuy déglu kiy nodd di ko awu. di ko aw mooy di wax li muy li muy wax loolu luñ santaane la santaane nañ it ku dugg ci jàkka mu nuyu ko kon ku dugg si fekk ñu nodd nu muy def mën naa def luy tax mu boole ñaar yëpp mu ma def ñaar dañu santaane yëpp mooy bu agsee na bañ a toog mën naa bañ a toog taxaw di déglu ki nodd di ko aw ba mu noppi mu julli ñaar rakkaam def na ñaar yëpp def na ñaar yëpp kon mën naa boole ñaar yépp bu ñëwoon nag daldi julli ñaar rakka kon def na lenn bàyyi lenn ginnaaw mën naa boole ñaar yi nag def ñaar yi moo gën di bàyyi benn bi boo ko bàyyi woon tam duñ ko wax lenn ndax ñaar yépp luñ santaane la waaye du farata ñaar yépp lenn du ci farata ginnaaw lenn du ci farata nag bu mu ci bàyyi itam du tax dara di ko ca fekk waaye ginnaaw mën naa boole ñaar yi nag boole ñaar yi moo gën te mooy bu agsee mu bañ a daal di julli bañ a toog itam waaye day taxaw ànd ak ki nodd ba mu noppi mu nuyu jàkka ji door a toog sëñ Cheikh.
kii day laaj mu ne ndax tailleur boo xam ne day ñawal jigéen ñi yére yoo xam ne day xat ci seen yaram comme ni mu xewee léegi mu ne ndax tailleur boobu dana ci am bakkaar.
foofu nag laaj na teqantal. ak taqale yére yu xat du ne yére yu xat daa araam rek daa araam rek fépp ci ñépp daa am num araame ak num araame wut kii ñaw nag bu xamee ne moom yére yu xat yi muy ñaw moom nim araame lañ koy jëfandikoo boobaa du ko sañ bu xamee ne nim araame lañ koy jëfandikoo ndax yére yu xat nit sañ na ko sol ci biir néegam moo kam kam ko seqal sañ na ko kon yére yu xat rek araamut mooy jëmmi ñaw ko rek araamut ndax manees na koo jëfandikoo ci lu dagan lépp lu ñu mën a jëfandikoo ci lu dagan man koo jëfandikoo ci lu daganut kon jaay ko araamut ñaw ko araamut lu dul ne kii jaay wala kii ñaw dafa xam ne kii moom ci lu araam rek la koy jëfandikoo wala boog dana ko jëfandikoo ci lu araam boobaa kon du ko sañati waaw du ko sañat waaye bu dee yoo xam ne mën nañu koo jëfandikoo ci lu araam mën ko jëfandikoo ci lu dagan te wóoru ko ci moom kii ci lan la koy jëfandikoo mën na koo ñaw ka ko jëfandikoo ci lu ci lu araam moo tooñ boppam waaye bu xamee ne nag dañ koy jëfandikoo ci lu araam moom xam na ko boobaa du ko sañ a ñawati du ko sañ a jaay lu mu ca def bokk na ci ñi dimbale dimbale nit ci ci ak moy te dañ ko waxoon ci ginnaaw rek yàlla dafa digle ñuy dimbalante ci lu baax ak topp te bañ a dimbalante ci ak moy ak tooñ sëñ Cheikh.
kii day laaj mu ne ndax fase aaju woon ay seere mu ne tamit ndax nit su bëggoon a fase soxnaam yaayam doy na ci seere yaay ku góor gi.
aajo woona dañ ne dañ naan baax na ci baax na ci fase seere baax na ci baax na ci ñu seere ko moo gën moo gën waaye bu ñu ko seere wut itam du tee mu wér du tee mu doon am passé bu amut senn seere it du tee mu doon am passé waaye nag wutal ko seere moo gën ku doon seeraloom passé it dañ naan yaay moom way jur rek way jur way jur du mën a seere doomam doom it du mën a seere way juram seere nag bu ñu ko waxee foofu mooy seere seere su dëppoo ak lam bëgg seere su dëppoo ak lam bëgg bu dee doom ji moom mooy wax ne fase na foofu sax laajut seere ndax dëgg-dëgg boo mu seere itam ginnaaw moom moom mi am sañ-sañu fase nee na fase na boo amee seere bu ko amul moom fase na waaye bu doon loo xam ne daal doom ji mooy moom la yaay ji seereel te seere mooy tax ñu jàpp loola te loola daa dëppoog li doom ji bëgg kon duñ may yaay sax muy seere duñ may bàyyi itam muy seere duñ may doom it muy seere bàyyam wala yaayam kon dañ naan ba way jur du seereel doomam doom itam du seereel way juram soxna du seereel borom këram borom kër du seereel soxnaam li jublu ci seere nag mooy seere su dëppoo ak lam bëgg waaye bu doon safaan bi nit ki soxnaam tooñ mu ñëw seere ne moo tooñ moo tooñ danañ ko nangu danañ ko nangu waaye soxnaam ne dañ koo tooñ nag moom mu ñëw di seere ne waaw dañ koo tooñ loolu duñ ko nangu ndax dañ koy dañ dañ ciy ñaaw njort dañ ciy mën a ñaaw njort dañ mën a ñaaw njort ci ne nit kii di seeral baayam daal li li li li baax ci baayam rek lay wax kii seeral doomam di baax ci doomam lay wax kii seeral borom këram di baax ci borom këram lay wax waaye bu dee safaan la seere nag dinañ ko nangu ndax loolu séentuwuñ ko séentuwuñ nit di seeral doomam lu baaxul ci moom kon bu ko waxee dañ jàpp ne kon daa day dëgg day dëgg moo tax kon bu dee lu mel nii bu dee passé moom seere doonut lu ci munta ñàkk doonut lu ci munta ñàkk ba tax na kon du laaj ñu ciy dugal yaay ndax bu seerewut itam du tee ginnaaw doom ji fase moom nee na fase na rek fase ma dañ koy jàpp kon yaayam waxam duñ ko jàpp foofu duñ ko jàpp du tee passé mi nag ñu jàpp ko ndax laajul laajul wala boog seere du ca sart seere nekkul lu ci munta ñàkk suñu cheikh
mbokk mi day laaj mu ne bu fekkee ne dañoo fas ab sëy ci diggante góor ak jigéen fekk ne jigéen jaa ngi ci idda mu ne ndax bu ñu seqee dara loolu dañ koy jàppee njaalo wala duñ ko jàppee njaalo.
déedéet déedéet njaaloo moom mooy ñoo xam ne seq nañ te wóor na leen ne ab sëy doxul seen diggante wóor na leen ne jamono yi ñuy seq ab sëy doxul seen diggante. bu fekkee nag ñu seq lañ te jamono yi ñuy seq dañoo jàpp ne ab sëy dox seen diggante booba donte wérut sëy ba wérut itam du tax ñu ne njaaloo la ndax ñoom jàpp nañ ne ab sëy moo doxoon seen diggante loole kon dañ naan subha la lënt lënt mi ci nekk moo tax dee su ko jàppee njaaloo njaaloo moom mooy ñu ko seq bi ñu koy seq xam nañ ne ab sëy doxul seen diggante jamono yooyu xam nañ ko loola mooy njaaloo waaye bu dee am na lu tax ñu jàpp ne sëy mi ngi dox seen diggante rek duñ ko jàppeeti njaaloo donte lañ jàppoon ab sëy sax dub sëy waaye ñoom moom lañ jàppoon boobaa kon jubluñu woon a def lu ñu leen tere kon njaaloo wuñ doonte loole sax du ab sëy bu wér waaye du tax ñu ko jàppe ko njaaloo sëñ Cheikh kii moom day laaj mu ne kan mooy néew bi nga xam ne dañuy jàpp ne shahid la
waaw shahid dañ naan ñetti xeeti shahid dafa am ñetti xeet am na kuñ naan shahidu bu àddina ak àllaaxira la mooy shahid boo xam ne atti attey attey shahid ci àddina dañ koy doxaleek moom atteb shahid ci àllaaxira itam day dajeek moom loolu mooy ki ñu rey ci xeex boo xam ne dëgëral lislaam moo ko waral te moom yéeneem selloon moom moom mi ñu rey ci xeex bi xeex bi da cee sellaloon yéeneem ngir yàlla ak dëgëral lislaam moo ko taxoon di xeex kooku bu ñu ko reyee dañ naan shahidu àddina ak alaaxira la àtte àddina yi mooy li ñuy defal nit lu dul jullee duñ ko ko defal duñ ko sàng duñ ko sàng duñ ko sàng yére yi mu doon xeex bañ rey ko ca yooyu lañ koy bàyyee waaye duñ ko sàngee leneen danañ ko jullee nag àllaaxira yàlla da koy ba da koy baal da koy jéggal ay bàkkaaram yëpp kooku ñaari at yëpp ay daje ci moom shahidu àllaaxira rek te daa mel laa joxe ne fa la jëm mooy ñoo xam ne nekkuñu woon ci xeex waaye seenu faatu jaare na ci natt bu méttee méttee métti boo xam ne xëy na méttiit méttiitu méttiit méttiit méttiitu fa seenu faatu jaare moo tax yàlla yërëm leen ba bu ñu faatoo rek mu jéggal leen ñooñu yent bi tudd na ci ñu bari moom ñu bari yenn yi ay wéradi la am nañ am yenn wéradi yooyu ku ca jaare ba faatu day dugg foofu yenn yi ay nattu lay doon lu mel ne lakk koo xam ne ci lakk la faatoo koo xam ne ci lab ci lab la faatoo koo xam ne yenn wéradi yi la wéradi yi jigéen ju ju ju ju ju ju doon matu jaare ca ñun ñëpp ci ñii tudde ñuy shahid shahid yi àllaaxira mooy àddina àttee shahid kenn du ko kenn du ko kenn du leen ci jaarale mooy dañ leen di sang sang leen waaye bu àllaaxira nag àtteeb shahid mooy njéggal ga moom yàlla da leen di jéggal safaan bi nag mooy shahidu àddina rek mooy ki nga xam ne gis nañ ko mu bokk ci xeex xeex boo xam ne xeexu bu ñu yëkkatee lislaam la mu bokk ca ba tax biñ ko ca reyee ñu ñu jàpp ne shahid la ñu doxaleek moom ci àddina li ñuy doxaleek shahid bañ koo sang bañ koo sàng jàppe ko shahid waaye yàlla ma xam nag xam na ne du shahid du shahidu àllaaxira moom ndax xam na ne yéeneem seetlu toon bi muy xeex moom nit ñaa ngi ko ngir yëkkati lislaam waaye moom loolu tax koon a xeex bokk na ci xeex bi waaye yëkkati lislaam moom taxu koon a xeex dëgëral lislaam taxu koon a xeex waaye leneen moo ko taxoon di xeex kooku bu ëllëgee lañ dig sayid moom bokku ca kon sayidu àll àddina rek la loolu daal mooy ñetti xeeti sayid yi am bii nga xam ne nag bu àllaaxira kese la xam naa cee laaj bu gënoon a jëm moom ñu bari la ci yonent bi tudd ci xadis yu bari ki nga xam ne biir buy metti ci la faatoo ki nga xam ne sax mbas ci mbas la faatoo ki doon am doom faatoo ca ba ci ay tuberculose ku ca faatoo ku dara màbbu ci kawam mu faatoo ca ku faatoo ci lakk ku faatoo ci lap ku doon aar alalam bañ rey ko ca ku doon aar aar diine bañ rey ko ca ku doon aar ak njabootam bañ rey ko ca ku doon aar bakkanam bañ rey ko ca ñoo ñépp shahidu àllaaxira lañ duñ shahidu àddina sëñ Cheikh
jërëjëf sëriñ bi ci leeral gi mbokk mi day laaj mu ne koo xam ne dafa yor lu mel ni kamoot wala armoire def ci kaamil ci biir ndax sañ naa teg dara ca kaw armoire boobu wala kamoot boobu
waaw ginnaaw loola tegewul ci kaw kaamil bi rek loola sañ na ko xëy na bu ko mënee moytu nag moo gën alxuraan moom bañ koo tiimale dara moo gën tiimale ko ak teg teg ci kawam dara nag teg ci kawam dara dañ koy bañ dañ koy dañ koy moytu teg ci kawam dara moom kenn waru koo def tiimale ko dara nag te tegewul ci kawam ku ko def duñ ko wax dara waaye nag bu ko mënoon bañ a def mooy gën kon ku dugal ab kaamil ci ab ab commode wala armoire wala lu ni mel moo féete kaw moom ca biir waaye ca kaw armoire bi ñu tegaat ci dara nag loola moom dara newu ci xëy na ku ko mënoon ku ko mënoon bañ a def nag mooy gën ngir rek gën a warmaal alquran suñu cheikh
mbokk mi day laaj mu ne ndax dagan na ci jigéenu jullit muy liggéey ci foo xam ni dafay wane ay yére daal barab yoo xam dañ fay wanewu sol ay yére di ko wane ngir xemmem loo ñu koy jënd
waaw lu mel ne li ñuy wax man man kii naa man kii naa man kaay man kaay seen li seen liggéey mooy di sol ay yére di ko wane ndax dana dagan jigéen di ko def jëm ñi def gi rek dagan na waaye nan la koy defee fan fam fam koy defee nag la ñuy xool bu dee ay jigéen di koy def ci kanami jigéen kese yére yi jigéen ñu dajale ay jigéen di leen wan yére yi jigéen jigéen dana ko mën a sol ci seen kanam ñu leen koy won bu dee loolu dagan na kon jëmmi jëf ji dagan na waaye nañ koy defee nag mën naa tax du daganati bu ko doon def nag ci kanamu góor nag cere du dagan waaye bu ko defee ci kanam yi jigéen rek sol léere jigéen di ko won ay jigéen ngir ñu xam ko ngir xemmeem loo leen ko loola dana dana dagan sëñ sëñ Cheikh mooy bu ko dee wane ci ñoo xam ne daal sañ na sañ naa wane ci seen kanam ab taaram sañ naa wane ci seen kanam ab taaram ci kanam yi jigéen wala ci kanam ñoo xam ne sax ñu ko araam lañ rek bu ñu doon ay jigéen sax suñ cheikh
kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit muy essayer xeeti ñàkk yi nga xam ne médecins yi ñoo koy joxe
dagan na dagan na dagan na ndax daga na ci jullit ñuy ñuy essayer ci moom ñuy seet ci moom xeeti ñàkk wala garab wala yu mën doon rek lu ñu door a liggéey daal di ñi koy njëkk a seete ci ñoom ba xam nu mel ba xam liñ ci bëggoon mi ngi ceem déet ndax jullit mën naa bokk ca ñooña mën na caa bokk bokk ci sax lu baax a baax lay doon bokk ci lu baax a baax lay doon kon du rek mën na caa bokk waaye bokk sax lu baax la ndax loolu lépp ci dimbale nit ñi la bokk nit ñi dañoo aajowoo am paj lu leen di faj dañ ko aajowoo te buñ koy liggéey itam mënta ñàkk ñu jaarale ko ci lu mel noonu mënta ñàkk am ñu ko njëkk a seet ñoom danañ def nag danañ jël seeni matuwaay nag ba ba ba ba ba moytu lépp lu ca mën a lore kon ña nangoo bokk ca loola ñooña ñuy taxawu nit ñi lañ ña nangoo bokk ci ñi ni seeta ci ñoom garab gi wala ñàkk wii ginnaaw bi ñu jëlee matuwaay yi ñu war a jël yépp ba lor bañ leen a dal ña ca nangoo bokk lu baax la ñuy def ndax lu munta ñàkk la lu munta ñàkk la fardu kifaaya la fardu kifaaya nag ña koy def lu baax a baax la ñuy def ndax lu war ñépp la am paj ak fegu day lu war lay tax mu mën a sotti ñépp la war ñoo war a taxaw ba mu mën a sotti ginnaaw lii ci la bokk nag kon war naa am ñu ko féetewoo ña koy féetewoo kon lu baax a baax la ñuy def lu baax a baax la ñuy def sëñ Cheikh.
mbokk mi day laaj mu ne ndax dagan na ci jigéen joo xam ne day setal jumaa mu jël ay garab yoo xam ne day tax du gis baax ndax su gisee baax du mën a dugg ci jàkka ji wala jumaa ji.
ah ok ah loolu waaw ah maa ngi doon xam li tax mu lëkkale ko ak setal jumaa. waaw moom jëmmi def luy tax du gis mbaax rek moo xam day seetlu jumaa moo xam seetlu jumaa mooy bu fekkee du ko andil lor bu ko du andil lor rek sañ na ko bu doon seetal jumaa nag te bu ko defoon te mu andil ko lor du ko sañ jumaa it moom rek nekku fi ku ko mën a seetal jamono ji mu gisee mbaax mën naa toog keneen seetal ko waaye bu ko defoon te du ko andil jenn lor it dara nekku ci moo xam setal jumaa la moo xam leneen la am na ñoo xam bu ñuy aji lañ koy def ñoo xam bu ñuy aji lañ koy def ngir bañ mu dab leen fa ndax bu leen dabale mën na leen ay jafe-jafe mën naa jafeel seenu ko aj bu fekkee du andi lor docteur yi leen di seet xam nañ ne bu ñu ko defee du leen andi lor danañ ko sañ a def ab diir boo xam ne am na sabab bu ko waral lu mel ne kuy aji bañ mu dab ko fa ndax bu ko fa dabee mën na ko andi jafe-jafe ci ajam ak leneen loo xam ne rek tax na mu bañ daal di diggante bii daal mu fiy gis mbaax ndax am na lu mu koy jural loo xam ne ay jafe-jafe lay doon bu mënee def lii tax du ko gis te loola du ko jural lor dana ko sañ sëñ Cheikh.
mbokk mi day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit boo xam ne day dund ci réewu jàmbur yi nekkul ci réewam daal ndax dagan na ci moom mu lekk yàpp yañ fay jaay te xam na ne sax mën naa buñ koy rendi duñ ci sàmmonteeg ati sharia.
waaw àq sharia de bu ab jullit moo koy sàmmonteel ab jullit mooy sàmmonteeg li sharia digle ku dul ab jullit xamu ko sax bay sàmmonteeg moom te yàlla xamoon na loolu bi mu ñuy bi mu nuy may ñu jëfandikoo ñami ahlul kitaab yahud yi ak kerceen yi yàlla may na lu ñu jëfandikoo seeni ñam te xam na ne ñoom duñ digal ab jullit buy rendi xamuñ ko ñoom ba di ko def kon loolu dara nekku ci liñ tere mooy nga xam ne lii moom ki ko rendi da ko rendil lu dul yàlla da ko rendil lu dul yàlla da ko rendi ngir bégloo ci wala jaamoo ci wala gërëmloo ci lu dul yàlla loolu boo ko xamee ci nga ko dul jëfandikoo waaye bu dee ñiy def loolu xamee su leen xam xamuñ xamuñ ci ñoom loolu xamuñ ci ñoom ñuy rendil ngir bégloo ku dul yàlla ñooña lañ rendi bul jéem a xam nuñ ko rendee yow ñu ab julli lañ digal booy rende rendee la nii waaye ñoom boo xamee ne ñuy rendi lañ daal te xam nga ne it xame xamee woo leen ñuy rendi ngir bégloo ngir jaamoo ko lu dul yàlla boobaa lu ñuy jëfandikoo ci lu dagan mën nga koo jëfandikoo suñu saa.
jërëjëf Serigne Cheikhouna kii day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit muy jaay ay marchandises yoo xam ne nii xam na ni faux la nekk lu original daal.
waaw loolu de li muy nuru nuru kii de mën naa dagan mën naa dagan original mooy lan mooy ku njëkk a liggéey dara wutal ko aw tur ku njëkk a liggéey dara wutal ko aw tur am na yum ca def keneen liggéey lu nuroog loola mën naa dem sax ba jox ko tur woowu moom itam walla mu jox ko tur woo xam ne boo teeyut jàpp ne mooma kii liggéey leneen ñaari sart lañ naan bu ci amee dana dagan muy lii dul original mooy false royal li ñu daan wax royal ak pire royal benn bi ci njëkk mooy moom mii liggéey li dul original bi wane wut ne original la mooy naxewu ci naxewu ci am na ñoo xam sax dañ la koy wax dañ naan bii de original la bii nag nangam la kooku naxut naxewut nee na la bii false la bii original la kooku naxewut kon sart bu njëkk bi moom mooy na bañ a naxe na bañ a naxe mooy na ko bañ a wonee na bañ a wone ne mooy original la te fekk nekku ñaareel bi it mooy na ci bañ a lor na ci bañ a lore na ci bañ a lore lor ji nag ñu ngi koy gën a xool ci ki moom original bi na bañ a lor ci moom original bi mooy defar gi mu defar moom fals di ko jaay loolu na bañ a lor ci moom original bi ñaar sartu yi bu dajee naxewu ci mooy wanewut ne lii original la te fekk nekku ko ñaareel bi itam lorut borom original bi bu ñaar yooyu dajee dana dagan bu ci benn dessin nag du dagan bu dee da caa wax lu amut ne original te nekku ko daganut ndax naxe moom daganut ci menn njaay bu du toon ngir original ñàkk original sax daga daganut bu fekkee itam da cay lor borom original bi itam ba tey daganut lor borom original nag danay danay am danay am ndax léeg-léeg original ki koy liggéey da ciy am ay dépenses yu rëy rëy yu mu ciy def ay gëstu yu mett yu mu ci def fay ci ay nit ñuy gëstu def yu ay am na daal investissement mag a mag bu mu ci def boo xam ne li fekk jotuwut jotuwut bu demee ba jotu nag bu jotoo nag lorootut bu keneen jaayee dara itam du ko lor bu jotoogut nag bu keneen di jaay lu nuroog li muy lim liggéey moom te amul qualité bi mu liggéey am mën na caa loru bu ca dee loru nag du nekkati lu dagan waaye bu ca loruwut te ki jaay fals bi itam naxaatewu ci boobaa suñ Cheikh dana dagan
jërëjëf sëriñ Cheikhouna xam naa laaj bi ñuy mujjee kii moom dafa ne mi ngi France ndax kon dina mën a jël muurum kooram ñu génneel ko ko fii ci Sénégal xayma ko ci CFA wala euro génne ko ko ci Sénégal daal
waaw muurum koor day ak génn ñu asaka ci boppam rek ndax muurum koor tam ci xeetu xeetu asaka la rek li ciy cosaan mooy ki koy génne fam nekk fam nekk fa la koy joxe aleykum salaam
rawatina bu fekkee la ko la jur la jur alal jee tam foofa la nekk fa alal jee juddoo daal comme day liggéey fañ liggéey ba alal ji ame fa fa la koy joxe bu dee muurum koor tam fam nekk fa la koy joxe loolu mooy cosaan fam nekk kon bu dee fam nekk xam na fa ñu ko yayoo waru leen a jéggi di ko yóbbu feneen bu xamut fam nekk ñu ko yayoo nag dana ko sañ yóbbu feneen waaye bu xamee ñu ko yayoo fam nekk moom muurum kooram fam nekk la koy joxe ki ko yayoo nag ab jullit lay doon moom muurum koor moom mënuñ ko jox ku dul jullit bu doon sarax rek mën nañ ko jox ku dul jullit waaye muurum koor ak asaka moom ab jullit lañ koy mën a jox kon fam nekk bu fekkee am na fa jullit bu ko yayoo waru koo jéggi di ko yóbbu feneen bu ko fa xamut nag dana ko sañ yóbbu feneen fañ koy joxee nag foofu lañ koy xaymaa fañ koy joxee fa lañ koy xaymaa bu fekkee fam nekk la koy joxee foofu la koy xaymaa bu fekkee gisu fa ku ko yeyoo xamu ko fa ba yónnee ko feneen fañ koy joxee rek fa lañ koy xaymaa bu dee da koy yónnee Sénégal kon Sénégal lañ koy xaymaa kon li ñuy génne Sénégal la ñuy génne ndax ñi ñu koy jox Sénégal lañ nekk sëñ Cheikh. jërëjëf Serigne Cheikhouna kon ñu delluwaat di sant Serigne Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ci leeral yu am solo yi nga xam ne indi na ko ci laaj kon ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu dégg ak topp ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.